aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokk taaliba yi mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média TFM religion religion ñu ngi fii tey si diwaanu Touba bu ngeen xoolee bërëb bi xam na ñu ngi si bërëbu xam-xam waaye itam ñu ngi si bërëb boo xamante ni fa tabaarakallahu bërëbu leer la waaye itam bërëbu gindeku la mooy fan mooy daaray kaamil di bi nga xam ne sëñ Abdoul Ahad Mbacke radiallahu taala anhu ibnu Cheikhul Khadim moom moo ko sosoon ngir lan xam-xam mën yaatu ngir lan xam-xam mën a belli waaye itam ngir lan xam-xam mën jëm kanam ngir képp koo xamante ni danga nga cosaanoo si réew mi cosaanoo fii si diwaanu Touba rawatina lépp loo soxlaa si xeetu xam-xam nga man ko fii am loolu moom moo tax ñu ñëw fi tey ngir fas yéene fii amal gëstu boo xamante ni dañ leen koy yegge ngir ngeen xam li nga xam ne moom mooy solos xam-xam waaye itam ak Cheikhul Khadim radiallahu anhu ak njabootam ni ñu fonke woon xam-xam waaye itam ak ni ñu ko bëggee bu ñu fi duggee léegi di ngeen gis ne xeeti xam-xam yi nga xam ne doomu aadama rawatina jullit bi rawatina taalibe bi daf koy yittewoo yëpp sëñ bi dëxëñ na ko mu nekk fii fa tabaarakallaahu loolu na nga xam ne suñu njariñ la waaye itam suñu tiitar la ñun nit ku ñu ñun sénégalais fa tabaarakallaahu kon yal nañu yàlla fayal Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ak mboolem njabootam gi yëpp kon du ñu def lu dul ànd ak yéen seen télévision Futur Média si biir màggalu année 2016 dem seeti li nga xamante ne moom mooy xeeti xam-xam yooyu jukkil leen ko andil leen ko kon ngeen topp ñu dem jël leen ko ñëw ngir ngeen mën ko taataan man ko seetaan ci seen chaîne télévision TFM religion fa tabarakallahu kon ñu dem jëli ko andil leen ko ànd si ak ay waxtaan waaye itam yu ama ama am solo ñu dem jëli bismillahi rahmani wa sallallahu taala ala sayyidina mawlana muhammadin wa ali wa sahbi wa sallama tasliman allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ali wa sahbi wa aktub lahu alayhi salatu wa salamu bi anna ñaada dama ruufi ملغا بسارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وزرتها من الشيطان الرجيم rabbi a'udhu bika mina mazati sayatini wa a'udhu bika rabbi ñu ngi daaray kaamil jàkkaarloo ak sëñ Ousseynou Diatara nekk fii sëñ Ousseynou daaray kaamil eh, lan moo lan mooy daaray kaamil yow salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu leen siyaar leen sant leen ragal fii ci daaray kaamil ñi nga xamante ñu ngi teg Seexul Xadim ci ndigal sëriñ Moussa Guèye mi nga xamante ne moo nekk responsable bi daaray kaamil nag suñ koy wax suñ Abdou Lahad Mbacké moo ko fondé woon 1977 ngir lan dajale lépp loo xamante ni xam-xam la yoo xamante ni nit ñi dañ ko yittewoo ndax li taxoon mu sas ko ñaari wax la woon rek dana woon li tax mu def ko mooy danañ dem ba jëm jamono di ñu gis ci sëñ bi di ay doomam di gis ci ko bis léegi bi mu gis suñu ñooñu ñu delluwaat ci ay mbindam kon moo taxoon mu fondé euh, mën nga est-ce que takk nga ban année la ban ban at. waaw 1977 la ko fii. léegi ñu daaray kaamil yan xeeti euh, téere yi xam-xam ñoom ñoo fi nekk. Hmm, daaray kaamil dañ ko xaaj ci trois parties saal yi première partie bi alxuraan la deuxième partie bi xasaayit troisième partie bi nekk culture générale. Hmm. léegi léegi ñu nekk ci fi ñu toll nii ñu nekk ci première deuxième partie bi deuxième partie bi lépp li nga xamante ne suñu tubaab tarif na ko ci téere xam-xam. ak téere xasaayit mi ngi fii dañ ko def pari diiwaan ngi ko tuddee par diiwaan léegi fii ñu nekk muy rayon première bi li jëm ci diiwaan tawhid fiq tasawuf ak naxaw moo jëm ci lii mu nekk fii kon lépp lu jëm ci wàllum diine rek mi ngi ci foofu sëñ bi na ko bi ñu demee ci deuxième bi lépp lu jëm ci ay xasaayit yoo xam ne koo tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi foofu dañ tuddee ko diiwaan euh, saxaadatu muridiyya fii am day xayri mursaliin moom mi ngi foofu ci rayon boobu bu ñu demee ci troisième réunion bi ñu ngi fekk silkul jawaari fii axbaari saraay lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum ñaan lépp loo xam ne jëm na ci wàllum muslaay ak lépp loo xamante ni day jàngale sa àdduna ak àllaaxira noo ci mën a doxalee ñu ngi ci réunion boobu ñu topp ci diwaan salaatu ala nabi alhaasi bi lépp lu jëm ci julli ci yoonu salaahu salaam xasaay yi nga xam dafa aj ci julli ci yoonu salaahu salaam mu ngi ci réunion boobu léegi ñu teg ci beneen diwaan di génne secret yi di ko way benn tur yàlla bu ne ma génne secretam toj ko teg ko ci diwaan bu ñu tuddee fulkul masuum bi ñu jëmee ci beneen diwaan bi ñu diwaan al muxayyada ayat bil quran yi nga xam du ko tënk ay aaya alquran aaya alquran la jël di ko way aaya bu ne mu def ko xasida ba bukaan bi bu ñu demee ci yeneen yi ñu def diwaan muxayyada bi xay bi xayri ayat alquran yi diwaan boo xam du ko tënk ci lu ay aaya alquran ci waxi yéen salaam salaam ay waxi bari xam-xam yi ñu ci beneen diwaan diwaan nurul daare nii boo xamante ni fii xidmati aamiaare ni ñu ngi foofu am na ci yeneen téere yoo xam ne ci ay Soxora ñoo ko way ñaari Mauritanie yi ñoo ko témoigné ñu tuddee ko ak diwaan Soxora Sénégal boo xam ne da ko def tuddee ko majmoo foofu ci ci ci salle bi. Hmm. xam naa li may laaj dina xaw a jafe de <laughs> téere yi bëri na de. waaw téere yi bëri na te takku takkul takk takk nga lim bi. ñu ngi ciy nekk fi ñu toll nii di wàññiwaat lim bi. dañuy fi ñu toll waaye ak guñ. ndax dañuy def rek chaque année am téye yu bees yi dolleeku léegi fi ñu toll jamono ji commencé woon nañ ci wàññi bi mais aggut aggut ci ñu ngi ci wàññi bi mais paregut ndax mënu ko ñoo wax grossesse résultat bi ñaata la. wax nga léegi téere yu bees yooyu téere yu bees yooyu dolli ko fan lay jógee. waaw téere yooyu mooy téere yi ñu fi indi lenn ci xam-xam yi ñi nga xam dañ bi wala dañ koy dañ koy indi ci histoire sëñ bi. ñun ñoo koy ñoo ko hmm. léegi ñi fiy ñëw di Reug Reug di visiter di xool di saytu bërëb bi maanaam ñoom bu ñëwee Reug Reug si yan xeetu xam-xam si lañuy ñuy gën a euh, euh, wu. léegi nag damaa waxoon ñett sàlla hmm. léegi am na ñoo xam ne si bari bu ñëwee ci wàllum téere sëñ bi la ñuy gëstu jëm ci wàllum euh, jàngalem sëñ bi ci wàllum fiq wala ci wàllum adab wala ci wàllum tawhid ñu ci bari ak ñoom ñoo xam ne ñuy gës ci wàllum xasaay bi ndax am na ci xasaay yoo xam ba tey génnagut ci terrain yi mi ngi fii hmm. am na xasaay xasaay yu raar yoo xamante ni boo ubbee ci diwaan nga naan xasaay bi xasaay bi bees la parce que mosuma ko gis nga mas naa am xasaay yoo xam da ko xasaay yu doy war yu doy yaram hmm. mi ngi foofu léegi nag euh, ci yeneen benn bi ko ci beneen salle bi mooy salle culture générale bi am na ci ay étudiants yu baree baree bëri yoo xam ne dañuy jógee fu ne di fa ñëw di ko gëstu si ndax salle boobu lépp lu aju ci wàllum programme université sëñ Abdou Lahad def na ko foofu li jëm ci li jëm ci wàllum wala mu diin yooyu yëpp ahadis tafsir yëpp yu nekk foofu li jëm ci wàllum science li jëm ci wàllum lépp loo xamante ni soxla na ko ci wàllum xam-xam rek dugal na salle boobu du sa sallo saxaafama ki du Sénégal ndax euh, dina am ñoo xam ne dañuy ñëw léeg-léeg bëgg ku leen al benn téere wala yu demee noonu ndax loolu dinay faral di waaw fii nag euh, norme bi dox ci yeneen yu tey foofu la ñu xaw a wutee fii nag bokku ci bokkul ci ñu génnee ay téere di ko able mais ku soxla boo ñëwee téere sàngam la soxla dañ la génne jox la ko di commencé 8 heures ba 18 heures ñu ngi fi maanaam waaye téere du génn moom loolu moom lañu ci amoon ndigal suñu Abdoulaye moo ñu joxoon ndigal boobu téere benn téere du génn téere boo soxla da ngay ñëw téere sàngam la soxla am nañ salle lecture ñu jël sa carte d'identité identifié la xam ne yow ab lecteur la ñëw indi la téere bi soxla ndax léeg-léeg nit du lire ba pare ne dama bëgg photocopie page bi wala dama bëgg photocopie waaw léeg nga gis nit ñoo xam ne ñëw pour ne dama bëgg loolu yëpp mën naa jàpp na la bu naa nekk bu fekkee page yi ñu bëgg a lool waaye nekk téere bépp la ñu ko photocopier jox ko hmm. wax nga itam am na xasaayit yoo xamante ni génnagul léeg-léeg comme ni nga ko waxee nit dox ba yem si léegi yooyu ku ci pour bu ko nit euh, doxee ba gis ko léeg-léeg li si ëpp lu mu leen di wax comme yan comme téere yi yi nga xam ne ne nga génnagul bu bu ñu ñëwee di visiter ba gis ko li ci ëpp maanaam ban impression la si am buy waxtaan ak yéen kon ñoom ñi koy seet ñi koy gis ñoom lan lañ koy dañuy dégg xasaay bi ñu wax ko suñ ko déggee léegi duñ ko gis duñ gis texte bi hmm. dañuy wëri texte bi fa mu nekk léegi li ñuy def dañuy xool diwaan yi yi fi nekk ñuy ubbi leen xool fahrase yi hmm. fahrase bu ne ñu xool ko hmm. ba gis eh, xasaay bi su ko gisee mun nañ ko jox ndigal mu photocopier bu fekkee am na tàmm nañ ko jox mu toog recopier ko rab kon loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la waaye itam wax nga ne am na beneen euh, benn ay réyon yoo xam ne beneen saal bi alquran rek moom moo fa nekk. donc ak ak yan xeeti xam-xam. waaw boobu alquran kese la moo fa nekk moo fa nekk maanaam alquran ci nga xamante ni leen ci sët suñ tubaay yi. di toll fukki dong ak benn la Sëñ Abdou Lahad dajale woon bind loo leen ko seen loxo ku ne bind ay kaamil bind bind mu yéemi sax bind rafet te leen bind ko seen loxo te duñ ko xool moom moo nekk foofu nga xam alxuraan kese fa nekk moom leen ko raxul alxuraan kon mën nañ yegg foofu xool ko waaye ci bismillah salli alayhi wal tusallim kullahin fi laali wa saabi maan wa saalin wa salli alayhim bi salaami ala alladi tasuru aqlaami sayidina muhammadin wal ali mu fekk nañ fi lu am solo muy uh, grammaire bu ñu olofal. Mm-hmm. waaw grammaire bu ñu olof téere bi tudd Sens de Touba boo xam ne sëñ Touba moo ko defoon léegi sëñ Jaw Paxa jël ko def ko olof nga xamante ni bépp olof boo xamante ni déggul arab sax. su koy liir mën naa dem ba dégg arab ci olof boobu kon looloo tax mu def ko. waa xool naa ko léegi gis ñu faram fàcc fi si wàllu grammaire yi arab bu ñu ko waxee si si français mooy analyse grammaticale donc ma gis fi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun donc wasalaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin muy olofal bu yéeme. xam nga loolu lépp rek ci jàngaleem sëñ bi la bokk rek ndax sëñ bi comme mag ñi toll noonu ay mag yi jëm nga xam ne ci ay tomb la daan jàngale mm. nga xam ne sëñ Mor Joop ba xam nii ku ku géeju woon na ci wàllum xam-xamu mm. ba bàkku ba ne man koo xamante ni moom man ci naaw ci àdduna la maa fi man mais keroog bi mu gisee sëñ bi daal dafa daan jël jébbalu moom ndax lam ko won ak lam ko ixraab la mu ixraab ko te ñu joxal ko beneen beneen version mu ko moom ko ixraab xam ne sëñ daal demee na ko ci wàllum xam-xam kon loolu tax ma ñëw ci sëñ bi xam xam-xam moo tax ma dugg ci sëñ bi kon loolu lépp ci njàngalam sëñ bi rek lay aju loo xamante ni maanaam fonk gi mu fonkoon xam-xam ak bëgg gi mu fonkoon xam-xam ci xam-xam bu ne nag moo waral moo waral bi urmati nabil muxtaari wasalli sarmadan alayhi bi salaam kama ilayhi xutta afdal alkalaam waltafina bi alifi taawusi maa yustaasu minu yaa muawisi waltakfina bi ayni kulla layin wa kulla ma lam tadooli yaa muyin waltakfina bi waawi kulla awan waltugnina an jaalibatin li gawan waltakfina bi zaali kulla zulli wa an araamin aanina bi lin sëñ Seynu ñu ngi fii ba tey ci daaray kaamil fii ñu nekk ni rek mooy mooy mooy ban ban ban saal waaw kon salle bi ñu nekk mu troisième salle ñu tuddee ko salle Safafa Hama culture générale mhm. lépp lu aju ci Safafa Hama rek ñu ci salle bi mhm. xamante ne lépp lu aju ci xam-xam bu ñuy jàngalee université boo duggee salle bi fekk. Mhm. parce que gis naa fi ay téere yoo xamante ni pour nga dégg ko sax dafa jafe maa ngi gis Zadul Muyassar ah fi ilmi tafsir maa ngi gis Tanzihu Sharia al marfua mu mel ni daal xeeti xam-xam yu bëri wala yëpp buñ ko sañee waxee noonu daje na. léegi xam-xam yooyu gis nga yëpp mi ngi fi maanaam di commencé ci na xadis euh, nabi sallallahu alayhi wasallam mm. di commencé ci euh, tafsir quran mm. di commencé ci tarjuma quran mm. di commencé ci te dirasat islam falsafa islamiya ak lii commencé ci siiratu nabi sallallahu alayhi ak fiq lépp lu aju ci wàllum fiq mi ngi fi ak lépp lu aju ci wàllum euh, usul fiq mi ngi fi ak ci wàllum économique yi ñu jàng ak lu aju ci wàllum droit am na fi lu aju ci wàllum mathématique lu aj ci wàllum agriculture médecine yëpp boo duggee ci biir salle bi da nga ko fekk histoire islam histoire am histoire ak géographie ak euh, nasaraan arab yi ak siraan arab yi ak funuun ñu jox ay fànn ay architecte yëpp yoo fooloo soxla ci xam-xam rek mu ci bi. kon daal fii daal xeetu xam-xam mm, xeetu xam boo soxla rek boo duggee da nga ko fekk. kon suñu abdoulaye bi koy def du ko lëkkale woon ak université bi mu ànd ak moom mm, yàlla dafa dogal avant pare yi mais ba tey sëñ Sidi Moxtaar ñu ngi ci pour liggéey boobu àgg pour loolu mën a continuer kon téere yi nag ñu ngi fi moom képp koo xamante ni soxla nga ci téere yi soo dikkee ci ubbi la salle lecture bi jox la téere bi nga soxla nga liir. jamono mu ngi dox mais est-ce que euh, euh, euh, su ma jëmul wax nañ ma ne itam yéen ngi ci tànku pour jëm ko informatiser. waaw loolu nekk nañ ci sori nañ ci lool lool saal bi ñu génnee muy salle de xasayda yi yooyu yëpp si siir nañ ko. tàppi nañ ko mi ndox lañ ko bind mais bind nañ ko ci machine bi hmm? machine bi bind nañ ko lépp ci machine bi nga xamante ne fa version boo soxla pdf boo soxla mu ngi site bi internet bi dalee kaamil point boo duggee dañ ko fekk ci diwaan yëpp nag onze diwaan yëpp bu dee ci salle arabe arabe bi ñu nekk muy culture générale bi fi nekk yëpp informatique nañ boo soxlaa téere yi bind tuuti téere bi rek moo xam ne réunion bi nga nekk bi mu nekk nga dem jëli ko fa ñu jox ko kii mu liir kon téere bi fi nekk yëpp ngi ci biir machine bi kon yëpp li muy ko escale nañ ko ci biir machine bi ndax àdduna day dox te it dara wóorul kon daal des na tuuti ku ku ku ubbi sa tablette wala sa ordinateur boo tàppee rek da nga am teel kon képp ku ubbi sa tablette dinañ jamono yoo xamante ni ñu ci nag yàggutul incha allah lépp na sotti comme lépp doo nekk ci machine ci ci tablette nga xam programme lay am nga xamante ne day nekk bibliothèque Seexul Xaadim boo ubbee rek téere boo soxla boo tàppee indi la ko. macha allah am na solo waaw kon xam naa fa tabaarakallaahu dañuy doxaat rek xoolaat yeneen kii yi ay kaamil yoo xamante ni ñi ko bind ñëpp leeru ku tedd ki la. waaw ah, fii mooy salle 1 mooy salle bi nga xamante ne seet Sëriñ Tuubaa ñu ko bind ak yeneen siyaas salle bi nag li taxoon Sëriñ Abdu Lahat defoon ko bëggoon a wane kenn tànn si alquran di wax na malakal quran ko ledun loolu bëggoon a wane foofu ci salle bi nga xamante ne sët yi nga xamante ne ay lenn ci ay doom la <coughs> doomi Sëriñ Abdu Lahat lañ ak doomi Sëriñ Suhaybu bu ab doomi sëñ Abdoulaye Bousso sëñ sëñ euh, Mbacke Bousso ak doomi sëñ Saliou sëñ Moustapha Saliou ak sëñ Modou Habib mi nga xam ne doomi sëñ Abdoulaye borom dër bi la kon ñoom ñoo ko bind seen bind loxo yoo xam ne sëñ Abdoulaye dafa fonkoon seen bind ñoom ba doylal ba ber leen bind leen ay kaamil ak sëñ Bassirou Dia ak sëñ Modou Guèye ak sëñ Guèye Mbacke sëñ Moussa Imam ñoo bind salle bi ci lépp ci alquran visiteurs yi bu ñu duggee bu ñuy visiter ba dugg si fu mel bañ yëg-yëg la ñuy am. waaw dañ fi dugg yëg-yëg bu fi duggee day yëg ci xolam xam ne fi ñu toll nii dugg foo xam mosu faa dugg te yëg na loo xam mosu ko yëg ndax lu mel nii mos a gis fenn ci àdduna fu mu dem fekk fa boo xam ne ci alxuraan kese la amul lenn lu ko rax xam ne dañ ko bind ci loxoy sët Sëñ Tuubaa seen loxo mokkal ko watt ko te xooluñ ko loolu dañuy yëg loo xamante ni ñoom bu ñu génnee dañuy sant sant koo xamante xam ne yëg nañ loo xamante ni mosuñ ko yëg te la la yàlla di wax rek man alxuraan ji sàmm na ko sàmm googu muy wax loolu da ngay gën a dëggal ci ci ñoom kon bu ñu dikkee dañuy yëg si bopp seen bopp bu baax baax si si si barab bi. kon daal daaray kaamil mu ngi nii ñu àndoon si ak ki nga mooy seen Ousseynou seen Ousseynou lan ngay dénk ndaw ñi si wàllu alquran ak wàllu diine waaye itam ak wàllu xasaayu seen Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu. waaw ndaw ñoo li ñuy dénk moom mooy lii rek lii moom koo gis xam ne téere yi defuñ ko fi ngir exposé dañ ko fay def ngir nit ñi jariñoo ko. ngir nga jëriñoo ko nag il nga xam nga wut foo pour nga xaw a nga mën a jàng lii fi nekk kon looloo taxoon suñu Abdou defoon ko pour soññ nit ñi ci xam-xam soññ ndaw ñi ci xam-xam ndax bi mu koy def génne ñu bari ñu génne jàngi xam-xam ngir bu ñëwee lii fi nekk ñu mën ko exploité kon ndaw li ñu soññ mooy ñu gën a taxaw sóobu ci xam-xam ndax Sëriñ Tuubaa léppam xam-xam la woon amutoon lenn lu mu dugg ci xam-xam bokku ci lépp lu mu noo nekk xam-xam bokku ci da koy teg am naan euh, inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa kon lépp lu mu am rek ci xam-xam la ko amee kon kon li ñu koy royee mooy royee ko ci li mu bari li nga war ci li nga xamante ne moom la fonk moom la bëgg kon ñun li suñu waar ci waar wi mooy sàkku ji xam-xam ba nga xamante ne dara du ñu mën a faagaagal ndax boo gisee jamono ji am yëpp jamono ji jafe-jafe yi am ñi këpp ñi fëkkee ñi yóbbe loolu lépp ñakk xam la mais ku xam doo mën a topp koo xamante ni xamut ndax sëñ bi bu ñëwee ci moom li lay njëkk def ci yow yar la bu la yoree par def ci yow xam-xam boo defee ci yow xam-xam nag da nga mën a dem fu la neex doo am benn li ñu leen gën a yi mooy sàkku ci li xam boo ko defee doo ko rëcc heure bu ne da ngay gën a nekk te boo demoon sax bu gën àdduna xam-xam bi dafay des sa jëmm dafay des sa xam-xam dafay des kon sëñ Tuubaa moom lépp mu xam kon képp ku koy roy bi nga ko njëkk a war a royee mooy sàkku xam ndax xam ci la amee lépp li mu def lépp ci xam-xam kon bind na bàyyi fi li mu bind bàyyi fi gisuñ ko naam mais li mu bind bàyyi fi moo tax ñu bëri xam kon xam-xam moo ko may loolu kon ñuy soñ ñëpp ci xam-xam jërëjëf jazakumullah ñu sant leen leen gërëm wax dëgg yàlla sant nañ leen seen liggéey rafet nañ ko ci màggal Touba ndax lépp loo xamante ni Sëñ Touba defoon na ko a koy feeñal li Sëñ Touba li ngeen di feeñal li Sëñ Touba yàlla na yàlla ca suturaal yokk seen xewal faj seen ajo ci ndigalal sëriñ Moustapha Diagne mi nga xamante ni nekk responsable bi bële Seexu Xadim bi nga xamante ni mi ngi fiy liggéey liggéey bu mucc ayib liggéey boo xamante ni ku ne teg na ci bëtam ku dikk da nga xam ne liggéey bi nga teg moom sensé na ku dikk da nga mën a jàpp na ci lépp loo bëgg ñu leen sant di yoon si asam yàlla na yàlla dafa xéwal fajalee seen ajo ak suñu tubaab عجوبة لكل ندب سبقا وليا بسين سرا عزما يا مغنيا عن كل من تعزما fa tabaarakallaahu mbokk yi mi ngi noonu gis ngeen daaray kaamil gis ngeen eh, visite bi nga xamante ni amal nañ ko fi ànd ak ki nga xam ne mooy sëñ Ousseynou Diatara fa tabaarakallaahu eh, mu nekk loo xam ne lu am solo la ngeen gis fi xeeti xam-xam yu nekk loolu mooy wane ne Ahmadul Xadim radiallahu taala anhu bàyyiwul dara si xeetu xam-xam yi ndax xam na ne xam-xam rek moom mooy jëriñ doomu aadama xam-xam rek mooy jëriñ nit ki waaye itam xam-xam rek moom mooy yëkkati jullit bi loolu moom moo tax gis nga lépp loo xamante ni xam-xam na buy wax si alquranul karim di wax si hadith di wax si sharia di wax si culture générale di wax si tafsir bàyyiwul dara dara dara dara fekk nañ ko fi nga xamante moom moo di daaray kaamil nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom moo ko sosoon atum 1977 yàlla na ñu ko yàlla fayal ta taas ñu seen barke ñoom ñëpp kon mbokk yi loolu lañ leen loon fii nga xam ne moom moo di daaray kaamil tegal leen ko seen télévision TFM religion fa tabarakallahu mu nekk liggéey bu ama am solo lépp rek aju si màggal gi nga xamante ni mooy màggalu at 2016 ñu amal ko fi nga xam ne moom moo di diwaanu Touba kon yaakaar naa ne xol yëpp fees na xol yi tooy na waaye itam ñëpp bëgg nañ ndax xeeti xam-xam yi nga xamante ni wax nañ leen ko jëlal leen ko fi nga xam ne moom daara yi kaamil tabaarakallahu kon mi ngi noonu ñu jox di daje beneen yoon si yeneen i bërëb fii si dëkk bu tedd bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf mbokku téléspectateur de télévision Futurs Médias euh, gannaaw ba ñu jógee fi nga xamante ne moom moo di daaray kamil comme ni ñu leen ko waxee woon bërëb yu sell yi nga xamante ne mu ngi si dëkk bu tedd bi yëpp incha allah danañ fa dem waxtaan ak ña nga xamante ni ñoo fa nekk ngir jariñu ci bërëb yooyu ak. ñu waxal ñu lan moom moom mooy histoire bërëb yu sell yooyu bërëb yu tëdd yooyu ñu ngi fi nekk si ay Rahmati du ñu si sori dañuy dem ànd ak ki nga xam ne mooy sëñ Darou Sarr ñu fekk ko fi waxtaan ak moom si lu aju si bërëb bi nga xam ne moom moo di Aynu Rahmati. Eh, sëñ Darou gannaaw bañ la nuyoo siyaar la bu wér si màggal gi nga xam ne ñu ngi koy jibsee ñu ngi la fekk fii nga xamante ni moom moo di Aynu Rahmati eh, bëggoon xam cosaanal bërëb bi lan la. wax na ñu ngi leen di fay di leen wax bisimilah. di sant yàlla bu baax di nga xam ne cosaanul barab bi mooy barab bi Sëriñ ci boppam moom moo tàmbali woon ci loxo boppam teen mu aynu rahmati wàqi loxoom ba mu xóot mu ne nañ ko gas biñ koy gasit nag siiwee nañ ne gas gi moom Cheikh Ibrahima saar Njaañ moom la ko sëñ bi gas loo woon waaye dafa àndoon ak ay magi taalibe yoo xam ne dañ ko daan ay ayloo di ko ay ayloo ba ci ayuk maam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ci la teen bi bënn bi teen bi bënne it ah maam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ tànq ci ndox mi jox ko sëriñ bi barkeelu daal ni ak saa ndox mii de moom laa doon seet ndoxum sam-sam la ak kawsara macha allah loolu moom mooy histoire bërëb bi waaye ñu bëggoon xam rek tey jii nii ñëw nañ fi gis nañ bërëb bi fa tabarakallahu ni mu mel léegi yéen ñi nga xamante ni yéen fi nekk nan ngeen nan ngeen jàngate bërëb bi waaw ñun ñi nga xam ne ni ñi lañ jàngate bërëb bi mooy bërëb bi bërëbu Serigne Touba la képp ku fi nekk di liggéey da ngay xam ne Serigne Touba ngay liggéeyal moo tax la nga cay def moom doo ci sonn loo ca man lu ne da ngay gën a feddliwaat sa pastéef fas yéene gën a defar ba ku ñëw xam ne yow mii fi nekk euh, yaa ngi ci liggéeyal Serigne Touba waaw ndax léeg-léeg nit du fi ñëw di bëgg si ndox mi pour maanaam di ci barkeelu moo xam day am ajo bu muy am wala day am feebar boo xam ne day nekk si moom mu bëgg jëfandikoo ndox mi ngir barke bi mën ko topp mu mën a saafara. waaw loolu day am ndax Serigne Touba ci boppam moo wax ne ndox mi ndox mi day saafara bépp ay xol ak bépp jàngoro boo xam ne nit am na ko di di naan ndox mi di ko ci fas te dëgg ci moom bu ca jàppee jëru muy dem ci docteur wala muy dem ci Serigne ndox mi dana ko saafara. yaakaar naa loolu it gis nañ ci ay firnde yu leer ñoo xamante ne nii am na ay jàngoro yu amoon yu leen jaaxal ñuy jàpp ndox mi di ko naan ba yooyee jàngoro ñoom ci seen bopp ñooy ñëw ci barab bi ne man de ndox mi ci laa yam te saafara saafara woon. kon bari na ñoo xamante ni jàngoro dab na leen ñu ñëw jëfandikoo ndoxu aynu rahmati bi suñ borom def si ak jàppandal ba ñu amaat wér gu yaram. waaw loolu moom lu wér la am na ñoo xam ne jàngoro daloon na leen joo xam ne biñ jàppanteeg ndox mi te boolewuñ koom dara. dem nañ ba gis ne jàngoro jooja saafarawul te man ay nit wax nañ ma ko fii yu bëree bëri yoo xam ne du benn du ñaar du ñett yoo xam ne dañuy ñëw wax ma ko te xam naa ne bu newul woon ci ñoom duñ ko wax loolu moom liggéeyub Serigne Touba la wérante wuñ ko moom. est-ce que ndax léeg-léeg itam buñ bëggoon xam rek ndax. at mi yëpp muy fukki weer ak ñaar yi am na si weer yoo xam ne ten bi dana am ndox wala am weer yoo xam ne ten du am du am ndox wala saa su nekk rek moom mu ngi ball rek. teen bi moom amul benn bis boo xamante ni da koy jàpp ñàkk ndox ndax yaakaar naa ne ci màggal gi pèlerin yi fii ñëw. yaakaar naa ne bu ndox mi doon jeex danañ ko war a mën a jeexal te yaakaar naa ne mënuñu koo jeexal waaw dafa tolloog nag gannaaw forage la boo xam ne day lakk courant ah il faut nu ci yërëm yërëm courant bi di ko xaw a diminuer di wàññi ndox mi li ñuy joxe ba ba ba màggal gi jeex waaye ndox mi moom mënuñu koo jeexal moom. kon su ma déggee bu baax ndox mi euh, kenn baagatu ko mais dafa am fu nen fu ñu koy jaaral muy wàllu forage bi nga wax ndax gis naa ay robine fële kon day jaar si robinet yi. waa ndox mi moom Serigne Abdou Lahad Mbacké ci ak baaxam. moom moo ko moo jëloon teen bi def ko forage ñu di euh, defal ko machine mu di ko mu di ko jukki waaye léegi kenn wëggatu ko Sëñ Abdou Lahad moo ko defoon forage mooy forage bi euh, di bu jógee ci forage bi dem ci réservoir bule euh, lu lu nit ñi bari bari màggal dañ leen ciy jox bu màggal gi jeex moom. kon daal kenn du fi ñëw di ne man dama dem fekk ndox mi jeex wala teen ba déy wala yu demee noonu. waaw loolu moo am naa yaakaar ci ne moom bu fekkente ne liñ bëgg rek am na. loolu moom yaakaar naa du am mbirum machine nag moo neexut a xam moom da ngay da ngay def rek ba ba nga ba loo gis waaye moom yaakaar am nañ ci yaakaar ne daal ndox mi moom du jeex. gis nañ ni bërëb bi itam nekk ne bërëb boo xamante ni bu feex la wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi yëg peex mi nga xamante ni moom moo fiy jóge rawatina si garab yi nga xamante ni moom moo ñu wër ndax yow fii mës nga fi dund loo xamante ni lu lu lu lu daw yaram la lu si bërëb bi. waaw bërëb bi moom xam nga comme bu Serigne Touba la. bu Serigne Touba moom toujours maa rek nga gis fa. lu la yem ndax yaakaar naa comme féex googu nga wax boo ñëwee da nga ko fi gis a ah, taaru googu nga wax it boo ñëwee da ko fi gis waaye lépp moom liggéeyu sëriñ bi la rek man jàpp ne liggéeyu sëriñ bi la mhm. waaw. kon sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ak mbokku taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw bëccëg la ñuy ñëw wala ñoo xamante ni sama classe bi dañuy bàyyi ba guddi ñu ñëw barkeelu door a. màggal gi moom bu ñëwee moom amul benn heure guddi ak bëccëg xanaa kay nun nooy dem ba xam ne war na noo mën a dallu rek ndax xam nga nit moom bu xëyee di taxaw yaakaar naa boo koy di taxaw ba bët set il faut mu bëgg a am dallu tuuti tuuti waaye fi mu ne danañ dem ba sax loolu duutuñu ko man dañuy continuer rek di joxe di joxe di joxe ba noppee noppeetee gis nitu màggal gi màggal gi jeex waaye du noppalu moom taalibe yi nga xam ne dañu ñëw di fi barkeelu si ndox mi ndax dafa am bërëb boo xam ne buñ paree dañ si fay dem sangoo ndox mi wala dañuy root yóbbaale ndox mi moom dañ koy root rek deesu ko sangoo deesu ko diw deesu ko tàngal dañ koy naan da ngay ñëw fas li nga bëgg naan ndox mi boo koy naan yaa ngi am aj euh, yoolub ku aj màkka yaa nga am yoolub euh, gëm yàlla yaa nga am yoolub natt asaka yaa nga am yoolub weeru weeru koor kon yaakaar naa ku fi ñëw boo wutee ci ndox mi ñëw naan barkee lu yóbbu mel na ne yow dem nga màkka daal waaw kon bu ñu la dëggee bu baax jamono yi suñu maam sëñ Abdoul Ahad nañ euh, nañu yàlla taas si barkeem te yokk ay leeram jamono jooju daal ba léegi ndox mi si forage lay jaar mais kenn wëggatuñ déedéet wëggatuñ ko ci forage bi lay jaar boo taalee am ndox boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla gisuñu ci lenn loo xamante ni lu ci lu ci ayib la wala leneen moom mu ngi dox normal daal wax dëgg yàlla. kon daal ndox mi comme naka maam boroom Touba waxee woon radiyallahu taala anhu ndoxam barke la waaye itam ndox la moo xamante ni day day faj ay jàngoro yu bëree bëree bari wax nga léegi ñi nga xam ne dañuy am ay jàngoro ñëw par exemple dama damay ñëw. pour barkeelu si ndax léeg-léeg ñooñu xanaa léeg ndax du ñàkk ñoo xamante ni dañu ñëw na ah sëñ bi lii day man maa ko barkeeloo gannaaw ko ndox mi faj na sama jàngoro. waaw loolu sëñ bi moo ko wax moo ne du ma fa aadan zaribun min ila afidati lazina faasoo bil xula anil xuloo bi axsil biha kulla kulla xuyób wa indaka icalha mi faatiwul xuyób sëriñ bi moo wax ne ndox mi boo koy naan bépp ayibu xol boo amoon wala jàngoro ndox mi da koy raxas ba mu set ayib boo xam ne waroon na laa mën a yóbbu safara ndox mi dana la ko raxasal ba mu set euh, bépp euh, jàngoro boo amoon ndox mi dana ko dindi ba mu set loolee nag ku ko kuy naan ndox mi ba gis ko ci da nga xam ne yow boo ñëwatee danga nga am yéene ñi fi nekk nga am loo barkeeloo ne lii maa ko barkeeloo ci liggéeyub Serigne Touba bi. waaw ah, balaa ñu lay bàyyi laaj bi nga xam ne moom lañ lay laaj rek mooy ndax ñi nga xam ne ñooy ñëw di taataan seen ndox mi di di yóbbu si biir réew mi la ñuy jóge wala am na ñoom dañuy ko ba bitim réew. am na ñoo xam ne danañ joge bitim réew sànq ci bëccëg rek am na koo xam ne euh, waa télé doon nañ ko laaj fii kooku ab français la bitim réew la jóge am na ñoo xam ne ñii barki démb ñëw nañ fi ña nga jóge Nigéria am na ñoo xam ne ay Burkina. dañ fiy ñëw dem barki dem bi ñëw biis lañ ba fees bañ ñëwee fii ci guddi lañ leen duyal ñoom ñëpp dañoo am yéene ay 20 litres sax lañ bëggoon ñu duyal leen ko waaye ñun ñoo leen na ndox mi moom dañ ko duy ci ay 20 litres dañ leen di jàppale rek defal leen 10 litres kenn ku ne dem waaye am nañ ci yéene lool ndax bañ leen waxee li ndox mi jëriñ rek kenn ku ne dangaa am pastéef lool ci ci ci yóbbu ci ndox mi kon daal euh, mu ngi noonu fii nga xam ne moom lañ fekk sëñ Daaro Sarr mu di Aynu Rahmati nga xam ne sëñ Touba moo ko euh, euh, tàmbali woon ci loxoom yu tedd loxoom yu sell yooyu mbàkk bàllay sa kon du ñu def rek du gërëm la sant la di la wax lan mooy nekk say kàddu yu mujj. waa samay kàddu yu mujj mooy sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaan yàlla ak Serigne Touba defal nu màggalu jàmm nu teewe ko ay déwéni déwén di sant sunu sang yi nga xam ne ñoo yore ñooy saytu barab bi. Eh, ci njiital Seex Ibrahima Khalil Sarr Jasaaka ak i rakkam yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. kon fa tabaarakallaahu mu ngi noonu ñu gërëm bu baax sëñ Darou Sarr si leeral yi nga xamante ni. defal nañu ko fi nga xamante ni moom mooy bërëb bu làbb bi di nga xam ne moom moo di aynu rahmati da ngeen li mu si wax yëpp ak li sëñ bi wax ne moom la ndox mi di jëriñ yëpp yal nañu yàlla defal njariñ loolu àdduna waaye itam ak àllaaxira loolu mooy wane ne sëñ Touba daal radiyallahu taala anhu amoon na wax dëgg yàlla xel mu yaatu fa tabarakallahu si nit ñi waaye itam rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokku taalibe yi ak gis-gis boo xamante ni bu sori la itam waaye itam te xóot lool ndax ku ñëw fii xam na tey jii ñii fii ñëw di wut sa li nga xam ne moom moo di ndox mi te dara yëkkatiw leen lu dul suñu borom defal leen ak jàppandal ba saafara su leen dab suñu borom man ka teggi jaarale ko si ndox mi yaakaar naa ne loolu itam suñu borom nangul nag ko loolu daal mooy wane ne sëñ moom wax dëgg yàlla njëriñal Sénégal la njëriñal askan wi la njëriñal. adduna bi yëpp la ndax koo xamante ni njëriñal ñëpp la kooku wax dëgg yàlla jar naa bàyyi xel bu baax a baax a a baax kon dañuy gërëm bu baax ki nga xam ne mooy sëñ daaro comme nañ leen ko waxee demal nañ leen fi nga xam ne mooy daaray kaamil ñu ngi ne ay na ra ay nu rahmati danañ dem armeeru baqiya waaye itam danañ dem si njabootu kër sëñ Touba ji nga xamante ñoom ñoo fi nekk danañ dem si ñenn si ñoom seen ay kër waxtaan ak ñoom si li nga xam ne dafa aju si màggal gi kon mu ngi noonu mbokk yi bu ngeen ñu toppee rek incha allah ñu ànd ak yéen si beneen bërëb وسعدي في كل وإنك اجعلني سرور السالين salli bi taslimin aliyillaahi alal musamma bi habiibillaahi wa aalihi